kon nañ ko yóbbu ci niveau ah, 3 bu demee bu demee bu mën a am scanner mën a am leneen mën a am leneen pour nit ñi gën a tàllal seen loxo mooy niveau bi na kawe bu niveau bi kawee pour pourtant buñ ko fi def li def ko feneen rek il faut ñu def ko fi loolu nag yaa ko moom di subvention bi moo doyul war nañu augmenter subvention bi li ñuy tëjee mooy niveau hôpital bi niveau hôpital bi dafa yàgg ci niveau un ñu dem ba di ko ba ba di ko muur di wax ni ñu ngi ci niveau de te bougé wul kon nañ ko yóbbu ci niveau trois ah, bu demee bu demee bu mën a am scanner mën a am leneen mën a am leneen pour nit ñuy gën a tàllal seen loxo. mooy niveau bi na kawe bu niveau bi kawee pour bu ñu ko fi def li def ko feneen rek il faut ñu def ko fi Ablaye loolu nag yaa ko moom di subvention bi moo doyul war nañu augmenter subvention bi li ñuy tëjee mooy niveau hôpital bi niveau hôpital bi dafa yàgg ci niveau un ñu dem ba di ko ba ba di ko muur di wax nii ñu ngi ci niveau de te bougé wul kon nañ ko yóbbu ci niveau 3 ah bu demee bu demee bu mën a am scanner mën a am leneen mën a am leneen pour nit ñi gën a tàllal seen loxo mooy niveau bi na kawe bu niveau bi kawee pour pourtant buñ ko fi def li def ko feneen rek il faut ñu def ko fi Ablaye loolu nag yaa ko moom